dellu di rafetlu sen téway euh, ci télévision Futur Média xibaar yi nañu leen ko waxee CUSEMS euh, moom grève générale la fas amal euh, talaata ak kon àllarba ji xëy nag toogaandu pa ñaxtu ci feulé ci direction fonction publique ñom cadre unitaire syndicat bobé nak ci moyen secondaire lañu yëngu dañu né nonu ci sen ñettelu plan d'action ngir bëgg nak nguur gi lamu fi digalé won ak ñom ñu doxal ko xey na ñu janoog waaye taskatu xibaar yi Aminata Mbaare saw mo fa nekkon ak Jibi Diallo sion bi ñu na ma amal si japp ne lu jëm ci carrière enseignant yi doon na lu leen soxal ñom nak ginnaw avertissement yu bëre yu ñu defoon ñom tay ñu jóg daal di jublu ci xex gi. ñun nekk ci classe yi nekk ci ay jafé jafé ñen ñi formé wuñ leen ñen ñi accompagner wuñ leen intégré wuñ leen seen salaire ak jënd table iya wala école ñoo yem ñu ne nag loolu mënatul wéy il faut que ñu arrêter lenteur administrative yi former enseignants intégrer les fonctions publiques. d'ailleurs le plan d'action nous ñun dinañ sitting direction de la fonction publique pour l'aider nous

waa Kisum si jàpp ne li ñuy xeex defuñu ko ngir xoqatal ndongo yi. ñun dañu bëgg gune yi jàng avancé ba sori lool mais ñun mënuñu avancé ba sori lool ndax dañ ñu téye. lay Ndoye ak i ñooñam jàpp ne tey dañ leen war a jox ay matuwaay waaye tamit ñu def leen ci condition ngir ñu mën a jàngal xale yi ni mu waree bokk na ci li ñu ñaawlu mooy système mirador bi nga xam ni nee nañu ci mouvement national yi indi na ci lompoñ bu bëree. CUSEMS su ko nek nonu ci ñetteelu plan d'action àllarba ak talata nañ ko waxee grève générale alxames toogaanu ñaxtu ci buntu kon fonction publique euh, ñeneen mom ño xamanteni ni nañu tay ji seen yëngu-yëngal wa Suneor liggéeykat yi ñoom euh, ñetti fan yi bankuk loxo lañu dogal dem sax bis bu jot koppar yu sakkan lañu euh, ñak ci walu woowu ne nañ du tax ñu deltu ben yoon ginnaw ndax noné ñu bëgg sax saxé kër ga sax saxé ko seen ëlëk duñu ko kon nangu ba waral ñu yëngu-yëngal noonu Aïssatou Pay Fall kon euh, la ñu ci euh, jokkool euh, mo indi ci ay leeral Aïssatou ñu ngi lay nuyu. waaw ngoone maa ngi lay fay. comme ni nga ko rek tey di ci juróomi région wu Sénégal yi muy Diourbel chor Louga kaolak travailleurs yi banque nañu seen loxo fekk ñetti fan nee nañu duñu liggéey ndax té saaxee bi ñu bëgg saax saaxee su ne woo ñoom d'accord uñu si parce que fu mu nekk ni dañ leen wax ni dañu bëgg jaay su ne woo bu Diourbel ak bu Louga bu bu Louga ak bu Kaolack te fumu nek ni ñom neena nee nañu mbir mi arrangé wu len perte d' dina ñu dinañu lolu ndax ndaxte travailleurs yi déjà fumu nek ni dañu sonn ba paré té euh, Abbas Abbas Jaber ak direction générale bi yorel nañ leen lu mat juromi milliards ndaxte ñaari at ni ngi kenn reversé wu len sen ay cotisation IPRES kenn cotisé lu len it ci caisse de sécurité sociale yi dem nañu ba nga xamné sen seen fournisseurs yi ak sen i prestataires ñu len fay. te diwlin bi nga xam ni ñoom ñi ngi ko yore ñetti at a ngi nii kenn jaayu ko te fu mu nekk nii ñoom li leen gënal si li ñu wax mooy ne bu ñuy jaay ñu jaay entité yëpp ndaxte bu ñu jaayee ñaar bàyyi yeneen ñi si des ñi siy loru dina bëri loolu. tu Paye Fall ñu lay gërëm di la sant kon waxit ci beneen euh, mouvement d'humeur liggéeykat yi nekkee ci autoroute à péage ñoom nag àggaguñu ci banque loxo euh, waaye nag ña ngay yëglu nee nañ bu fekkee nguur gi seen i kilifa mi ngi wéy ci tànqamlu bi euh, danañu jàll ci beneen vitesse ba waral ñu xëyee tey ji ay morso yu xonq ngir nag naqarlu anam yi nga xamante ne ñu ngi liggéey waaye rawatina seen plateforme revendicative seen i ñaxtu ñu tënkoon ko def ko ci téere 2014 ba léegi ñu teg ko taabale seni kilifa ken tudd len ken tasu len lolé nak lañu bëgg mu dak ken kon ci seni euh, responsable euh, lañu ci euh, jokkool Ousmane Diouf yo Ousmane ñi ngi lay nuyu. Ousmane niñ ko waxé da ngeen a xëy tey jii takk brassard yu rouge la len nakari mm-hmm. mm-hmm. li ñu naqari dafa bari dañu déposé won daaw premier mai ben plateforme revendicative don laaj augmentation salaire don laaj ñu gëna a dialogue social bi. doon laaj tamit ñi nga xam ne ñoo liggéey ci cabinet yi saa ñu wàccee ngoon système bi mun leen mun leen wax ne ndàngam ngeen di war a mun a verser waaye ba léegi système bi mënul wax liggéeykat bi boo wàccee ngoon nanga nga war a war a mun a verser mun a def comparaison li nga yore ci xaalis ak le système déclaré te loolu dafa boobu ba léegi ñu ngi koy wax dafa tax ñuy toog trois mois après nit ñi ñëw di di envoyé liggéeykat yi demande d'explication naa leen fàttaliku leen li xewoon ñetti weer Euh, ngeen def déficit boo indiwoo argument bu leer ñu jox la mise à bu nekkee ñoom nag yow da nga nekk seen nit seen mbokk ñu la jéem a xool ni ngay remboursé ñu tamit également beneen loolu loolu ñu koy ñaxtu te ndax doon encore ñu ñaxtu tamit dañu bëgg prime de risque ndax bu ñu waxee autoroute à péage wax risque également suñu travailleurs yi ngi lekkee ci mbëkk rido yi maanaam ci gargote yi te ñun dañu laaj également restaurant subventionné loolu yëpp boo waxee direction bi ñooñu ñu ngi réfléchir ñu ngi réfléchir boo la waxee à la table de négociation ñu préféré dem voyager le 30 bay passé 30 février bi passé dañu bëggoon takk brassard rouge et mag ñaan ñu ñu bàyyi ñu bàyyi ñu yaakaar ne ñu profité ci loolu pour ñëw indi dialogue ñu profité ci loolu dem voyager maanaam dem def seen Dakar maanaam faal wuñ travailleur loolu moo tax tey ñu ñaxtu ngoone daal yéen li ngeen bëgg mooy euh, action gannaaw kon dinañ ci jublu da ngeen bëgg ñu toog wax ak yéen. da da bëri nag teg ci satisfaire suñuy affaire parce que wax rek te doo fa te fa te fa jox dara moom jëriñuy toog. gërëm Ousmane kon euh, di xool rek nu wànnent di mujjee ki gëtëm ci wàllu woowu takk nañ brassard rouge kon niñ ko waxee liggéey ko ci autoroute à péage ngir nag euh, yëglu euh, lu jëm ci meneenu mbir tukkib président Macky Sall ci bët Sall mu ko réew mi gannaaw Ziguinchor Kolda ñu nga koy xaarandi boori ñaari waxtu fële kon ca Sédhiou ci wàll woowu nag kon laata loolu ci tournée économique am boobu ca Kolda ñu taxaw fa laata ñoo dem ca Sédhiou janoon na

liggéey yi ñu da def dans le cadre du programme de d'autosuffisance maanaam Sénégal war a waratu jéggaani ceeb bi di réew si diiru ñetti at loolu nag du wax rek parce que def déclaration yomb na lool ñu ngi jox la kayit wala nga wax lu la neex boo ñëwee sa kër fàttali nga waxoon loolu bokkul ak li may doxal boo waxee bëgg naa autosuffisance na nga ko teg ci xam-xam d' abord def nañ ci ay wér mais nga teg ko aussi si jëf. anamee nag dañ ko jàppe woon lu tuuti ñu fas yéene ko yaatal espace bi moo waral ñu actuellement engagé juróomi junni ci ay hectares ci ceeb junni hectares nag boo ko béyee ñaari ci at mi mel na ni fukki junni hectares nga am.

boobu ba 2016 kon rythme bi dafa dafa taxaw au total fukki junni hectare la ñu am fi ci bassin de Dana bokk la faro yi ak bii loolu dana tax région bi dundal boppam ci wàllu ceeb Kolda Nouri Kolda nga ne Kolda fële ca Sédhiou kon fële jubali ñu ko fay xaar ngoonuk euh, tey jii euh, foofe nag askan wa ñu ngi ko fay xaar ak it ay tawat yoo xamante ni euh, bëgg nañu mu saafaral leen ko bu weesee ndaje moom fa war a seq kon ak jëwrin yi kii di lamin Ba mooy dellu si ci agenda bi waaye it askan wa la ñu bëgg président bu ñëwee mu defal leen ko Lamine ñu ngi lay nuyu. maa ngi mm, kon Sédhiou ngi xaar président Macky Sall ci ngoonuk tey. waaw bu baax a baax euh, ngoone donc euh, fu mu nekk nii ñu ngi xaar ki nga xam ne moo di njiitu réew mi fii ci région de Sédhiou donc ngi fi xaar nag fukki waxtu ak euh, ñaar fukki waxtu ak ñeent ñuy naan 14 heures donc la war a egg si fii ci région bi jóge fële fi nga xam ne moo di Kolda fi nga xam ne nag war na ko visiter ngoone bu ñëwee mooy domaine agricole communautaire bu CFA foofa nag euh, xam nga président de la république moom moo initié boobu le programme ñu dippee euh, Prodac li mu ci jublu mooy rek gën a li nga xam ne dooleel mbéy mi ngir ndaw ñi euh, mën a xam am li nga xam ne moo di xëy waaye it gën a xeex li nga xam ne moo di xiif bi si ci diwaan bi maanaam li ñuy dippee promotion de la sécurité alimentaire waaye bu ñu bëggee ñëwaat ci jafe-jafe yi ngoone xam nga ni Sédhiou daf di diwaan bi nga xam ne dafa jànkonteel ay jafe-jafe yu tara tara bi ci njëkk moo ngi aju ci wàllu làkku bi nga xam ne diwaan bi def na ko ñu dippee ko enclavement euh, donc Sédhiou boo seetoo boo seetee mu ci biir euh, Casamance waaye dafa làkku ci biir Casamance sax làkku tamit ci lu des ci biir euh, ci biir Sénégal boo xoolee pour nga jógee Sédhiou dem Ziguinchor jafe-jafe la pour jógee Sédhiou dem Kolda naka noonu donc région bi yoon yu bëri daanaka kenn defaru leen diwaan bi dafa làkku mu am impact bi nga xam ne daf ko def ci wàllu koom-koom gi loolu tax nag fii lépp li nga xam ne ñu ngi ko fii béyee dafay faral di yàqu parce que duñ ko mën a génnee ngir mën ko dem euh, jaay euh, fi nga xam ne moo di boucle di Bourdieu fi nga xam ne moo di Bourdieu nga xam ne fa la ñu gën a béyee li nga xam ne moo di xeetu meññeef yu bëree bëri bëri daanaka dafay yàqu ci ay junni tonnes buñ koy xayma euh, at bu ne donc waa Sédhiou nag ñu ngi xaar bu baax a baax ki nga xam ne moo di njiitu réew mi mu jël ay dogal yu am solo ci wàllu defaraat li nga xam ne moo di tali loolu mooy première priorité mooy deuxième priorité mooy troisième priorité population yi Sédhiou enclavement bi ba léegi bu ñu naree wax ci jafe-jafe yooyu ngoone dañuy wax li aju ci wàllu pont bi ci kaw dexu Casamance maa ngi ko doon wax sànq si suba boo xoolee département de Goudomp dafa lakk bu baax a baax digganteem ak département de Sédhiou di capitale régionale bi amul yoon dex bi moo ci nekk donc Goudomp lakk bu baax a baax ba ba tax na jóge Goudomp dem Ziguinchor wala jóge Goudom dem Kolda moo gën a yomb sax ñëw ci capitale régionale bi am na ñi nga xam ne sax bu ñu naree jógee Sédhiou dem département de Goudom dañuy jaaree Ziguinchor wala jaaree Kolda ngir dem Goudom donc loolu jafe-jafe la bi nga xam ne askan yi bëgg na trop ñu saafara ko euh, tey li nga xam ne nag aju ci wàllu infrastructure sociale de base ñu koy wax ay école ay hôpitaux donc euh, li nga xam ne moo di ay électricité ngoone Sédhiou boo xoolee téeméer nit yoo jël fukk ak ñaari dong ñoo ci am courant douze pour cent de la population ñoo am li nga xam ne moo di électricité problème la ndox bi tamit daka noonu diwaan yu bëri yoo fi nekk amul ni nga xam ne moo di eau potable donc programme spécial infrastructure sociale de base tamit doon li nga xam ne ñu ngi ko fi xaar bu baax a baax pour askan wi mën a jot ndox mu sell te set boo xam ne mën nañ ko naan waaye électricité bi tamit mën a am parce que boo xoolee Sédhiou par exemple pakaaw bi yëpp lu toll ci presque soixante dix kilomètres quatre vingt kilomètres ay téeméeri téeméeri dëkk nekk ci lampe di ci tàkk loolu problème la ci wàllu santé bi noonu infrastructure yi des na personnel yi des na tey askan waa ngi ko doon wax ministre de la santé bi nga xam ne moom it mu ngi fi ñu ci bëri boo demee ci hôpital yi département yi bëri spécialité yi bëri ñàkk na Sédhiou fii amul li nga xam ne moo di ay pédiatrie amul spécialiste yi bëri nit dem wala dem Dakar donc yooyu yëpp ay jafe-jafe la nga xam ne ngoone askanu Sédhiou mu ngi ciy xaar président de la république ngir mu indi ci saafara yu am solo yaay tamit li nga xam ne moo di emploi jeune yi euh, li nga xam ne moo di xëy mi ndaw ñi nag ndaw ñi tamit soxla nañu xëy loolu nag boo gisee ñàkk xëy mi bëri fi dafa fekk rek ne Sédhiou amul li nga xam ne moo di unité d'emploi bi nga xam ne mën na tax

saafara tawitu gox yi nga xamante ni mom lay euh, visité euh, wala kon euh, mbirum politique dong la ñu cay gis ci pandaw la Fat Bintou conté Jibi Diallo doxantu nañ ci biir dëkk bi. njiitum rew Macky Sall jamono ji ma ngay amal tournée économique fee ci région Casamance mu askan wi di rafetlu lool ndax Casamance dafa nek dëkk bo xam dafa sensible lool. def na lu rafet parce que bu joggé bu joggé pour man ci Sénégal la Casamance nit ñi dañoo japp na newul ci Sénégal mais le mu def c'est c'est c'est très beau dem quoi waa Casamance dem dimbali pour man c'est normal lu rafet la def lu lu reuy la def. ñu ngi lo aussi lu mu inauguré fofu je sais pas xaw ay bateau ñaara bateau yi. Euh, loolu ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax aussi. askan wi jàpp ni Macky Sall dafa war a mën a jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy casacé yi ngir rébellion bi ñu nekkee sax mu mun a jeex ci seen ndodd. en tout cas ñun ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax euh, di ko ñaax aussi mu gën a liggéey pays bi parce que je pense que ku ne euh, gis na lu xewu Casamance ak yaa ngi koy dégg aussi ak problème yu bëri yi bu ñu sañoon daal mu gën a góorgóorlu mu gën a jàppale waa Casamance. Euh, problème de rébellion yi aussi jóge fa bu baax a taxawal yi les promesses nak ñen ci askan wi japp né moy doon li di jafé bo seetloo ñun dañu wara di def ay jëf yu effectif. tey nag njiitum réew mi ma nga ca région de Sédhiou parce que n'est pas amal ben conseil interministériel ba tax ni nak ñom wa Sédhiou ñang koy xaar ci ay projet yu bari wax ci wàllu politique ak euh, kurel go xamanteni mom moy mooy kon euh, parti ñu naan ña nga fare ci gauche euh, taxawal nañu ko ñom nak ne nañu du élection ñu deugmal moo tax kon ñu jóg waaye dañu bëgg doon ben force politique ci biir réew mi ba sen batam solo bu ñu yéké kàddu ñu mën leen may nopp jëfé ci lepp ngir njariñ askan wi moo waral ñu taxawal bobé confédération Codé ndjay ab coalition politique bu bees daal di juddu ci langue politique bu Sénégal parti yi ci gauche taxawal confédération pour la démocratie et le socialisme l'olé ngir rek mëna a sen doolé ci walu politique fi ci Sénégal. confédération bi taxawal tay li nga xamni mom la bëgg def dëgg mëna ko nam ko moy taxawal ben kuréel bo xamni da fay regrouper force de gauche yi Nex Sénégal gi yépp pour le moment ñëpp nekk guñu fi mais ñi ci dess woo nañ leen dañ waxtaan ak ñoom pour que ñu mën a ànd pour taxawal force de gauche bu am doole si réew mi parce que li nga xam ni moom la ñu gis mooy que gauche bi dañu euh, féewaloo gauche bi ànduñu gauche mënul fexe ba euh, peser ah euh, si dox dox doxinu réew mi. kuréel bi nag dana def ay ndaje juróom-benn weer yu nekk ngir rek yëkkati seen i kàddo ci xew-xew réew mi. dañu jàpp ay statut

amnañu ay structure si euh, localité yi mu si département yi si région yi dañuy wax ni parti yi fa nekk yëpp nañu dajalo amna aussi institut yu ñu créé pour euh, ndaw yi pour jigéen ñi pour cadre yi ak pour mag ñi. confédération bi di wo bépp formation politique bu gisee ni ñoom ñu fas yéene taxawal ay bànqaas ci réew mi ak ci biti réew ngir rek gën a mën a yaatal seen kuréel yar yi bitim réew ak euh, soxna sa njiital Côte d'Ivoire la woon Laurent Bagbo mom Simone Bagbo nak tey jii kon altine ñaar fukki fan ak ñett ci lay taxaw ca kanamu kay bi di cour d'assises mom ak juróom ñett fukk ak yenen ñetti nit ñuy topando ci attente sûreté de l'État nañu demit ci Nigeria Boko Haram moom weddina euh, kàddu yu ñuy jibal ni kon euh, tegatul loxo fele ci Baga wayit ñi nga xamante ñom ñoom ñoo di wa Somalie chebab yi nga fay diggé dal di songu yenn ci konay centre centres commerciaux est aux États-Unis ak France par Cheikh Diack. Ce Côte d'Ivoire tey la Simone Gbagbo soxnawu Laurent Bagbo, mi fa nekkoon président de la République di taxaw ci kanamu ëttu àtte bi ñuy wax cour d'assises moom ak juróom-ñetti fukk ak ñaari ko accusé am yi. Simone Bagbo ñu nga koy topé lu jëm ci atteinte à la sûreté de l'État té ñetti junni nit ñàkkoon seen Bakane fele ci Côte d'Ivoire gannaaw élection présidentielle bi. ca Nigéria mom Boko Haram weddi na ni. armée nigériane bi dafa nangu dëkk bi ñuy woowee Baga ci loxoom Boko Haram moo xamle li ñu mel ci réseau sociaux yi Baga mu ngi ci loxo soldaaru Allah yi noonu lislaam yi ne ñu ngi contrôler dëkk bi teguñu ko fenn mu di bataaxal bi waa Boko Haram posté ci internet centre commerciaux yi di Mall of America ak Forum des Halles nekk ca Paris terroriste somalien yi ñu woowee Chebab nee nañ dinañ fa amal attentat si lu yàggatul dara Chebab yi ñoo ko xamle ci benn vidéo bu ñu posté ci internet suñu fàttalikoo ci atub 2013 Chebab yi dañoo duggoon ci benn centre commercial bu nekk fële ca Nairobi rey fa lu toll si juróom benn fukki nit secrétaire américain à la sécurité moom woon na population américaine yi ñu jàppee menace yi au sérieux

gannaaw ba ñu daanoo fële ca Mali kon euh, gaynde yi ci wàllug basket euh, tey ji kon la ñu fas yéene euh, ñibbisi ci seen défaite boobee nag directeur technique section basket bu Jeanne moom ma nga ca indi càmbar nee na fraîcheur bi moo desoon ci ñoom waaye it li ñu perte ci ball dafa bari Cheikh Fall am kàddu yu mu ca dénk Pape Cheikh Diack. équipe ni waroon njaxlafee

Ah, juróom-ñetti fukk ci téeméer ay loko suñu njool yi dañ leen dañ leen doon gagné ci bal yi dal ci weñ bi bu dalee ci weñ bi soo ko jëloon su ko beneen équipe bi jëlee moom day amaat beneen day amaat beneen wërsëg pour attaquer waat numéro cinq bi meneur bi dafa yàkkamti woon trop ñu mu yàkkamtee trop nag mu am na bal yoo xam ne boo ko ñàkkee ci basket da nga koy fay soo ko ñàkkee da nga koy jël 24 points du dara ci match basket mënuñoo dóor 24 ba trois jours après nga ñëw door équipe bi 30 ganaaw uh, basket uh, football ak uh, jaraaf bu ndakaaru mom nak amna ndamam ci 10e journée championnat bi lolé nak match bu am solo doxoon digam kon ak olympique bu ngor jaraaf dor ngor ñaar ci dara yóbbu kon ñetti poñ yi entraîneur bu bes bi Amadou Diop boy bandi gis nak ni li li ko waral Modi xol ya lañu bolé mu gis ni ponk bobé amna solo ci ëllëgu jaraaf leerali pa Fara ñing ngi jatta di jël ci match bi. njalbeen bu baax la entraîneur bu bees bu jaraaf bi daal di def mu nekk nag génnam bu njëkk gannaaw ba nga xam ne Amara Traoré tekki nay ndombal tànkam première période bi nag jaraaf de Dakar moom moo dominé boobu la jongante naataang Pape Aline Diop yi nag ñoom mujj ñoo lakk caax yi ci mi bi zero bi partout la bi ñu dellu see nag jaraaf di puus ak ay coppite li nu mel nag feeñ ci jeu bi ba bi ñu joué juróom benn fukki simili ak benn seen capitaine bii di Pape Siré ci la teg daal di lakk caax yi Olympique de Ngor fexe lu ne nag ngir dellu si ci match bi waaye nag doon koo mujj di ko contre ba ci noonu nag ci la Pape Ismaïla Niang daal di am ab paas boo xam ne dañ ko ko jox ci biir surface bi li ci des kenn du leen ko nettali. ndam lii nag li ko waral moo nekk équipe bi ñëpp dañoo nekk ci ginnaawam. la du Jaraaf ñu

bon te football pour nga gagner il faut nga dugal but te occasion yi du tey rek quoi parce que ñetti match ak nii ñuy joué dugaluñ but te pour nga gagner match foog nga dugal. gannaaw ñaareelu ndam ci fukki bëccëg ci championnat bi Jaraaf de Dakar nag mu ngi tegaat ay jéego ci li nga xam ne moo nekk championnat bi di xaarandi ay bés bii ci onzième journée bi daal di dem fële ca Casa Sport ci stade Aline Sitoé jaata gannaaw dixième journée bi kon euh, match résultat yaa ngi nii AS euh, Pikine moom euh, diggam ak Stade de Mbour 0-0 la Sunayor dóor na Port benn ci dara Jaraaf ni ngeen ko gisee door Ngor ñaar ci dara Douane ak Ndiambour moom dañoo témboo ku ne benn nga dugal Linguère ñaari tali naka noonu ku ne ñaar nga dugal Mbour Petite Côte ak Casa Sport moom Mbour dafa door kon Casa ñaar ci dara Guédiawaye football club ak Wakam foofee it 2-2 la mujjee classement bi kon di taxawee nii Wakaam kon mo jitu ak fukki poñ ak juróom-ñett tegu ci douane ak 16 euh, points plus 3 Ndiambour euh, troisième place bi 16 points plus kon 2 euh, batay kon ci wàllu ko football lu soxal kon kan fédération égyptienne bu football mom nak jël na dogal retirer candidature am ngir organiser yooyee jongante 2017 liko waral nee nañ dañu bëgg jappalé Algérie ñaari ayu bés gannaaw fitna ya fa doxoon diggante policier Gauthier ak supporter yu club euh, Zamalek fukki nit ak juróom-ñeent euh, ñàkkoon ci seen bakkan dimanche bi la ko jëriñ ji ñu dénk wàllug euh, tàggat yaram foofee kon ca Égypte xamle yegg si kon gannaaw bàkk bi ci dossier bi wàllu société la tey. lan la ñuy waxtaanee jàngalekat yi nga xamante ni kon dañuy génn euh, ci kon école publique yi di dem kon ci euh, privé bi situation boobu ñi nga xamante ni ñoom ñoo di parents yi nag euh, noonu ndongo yi naqarlu nañu ci xarlu nañu ko ku ne nag ak li nga gis ni moo ko mën a saafara Pam Ndari Fall. njàng mi ci daara yi faree ci nguur gi ñu dem ba di ko fayeeku li ni mel nag teg tànkam bu baax ci système éducatif bu réewum Sénégal jàngalekat yi. ñu ci bari ci ñoom di won ginnaaw daara yi fare ci nguur gi ndax privé yi élèves yi di ko dëggal. suñu professeurs yi bon dañuy dem ci école privée yi xam di fa jox ay cours aussi di ñu imposer aussi di def cours eh, di ñu imposer forcement aussi pour ñu def ay kii ay cours du ah si école yooyu. pour man loolu baaxul parce que prof booy def kii public na nga yem si public wala nga yem si privé. xamoon nag ay waajuram ban liggéey ak liggéey la ñuy liggéey pour man danga koy bàyyi mu choisir fu mu ne fu mu neex daal mu jàngee fa. waajur yi lu lool situation bi le teg ci di woo jàngalekat yi ñu delloo àq ak yelleef tout tànk yi. loolu moom du lu rafet parce que man mii lay wax yow nii man public laa jàng du ñëpp ñoo jotee soo ñëwul jàngal ñu dem di dem privé di bëgg a xëcc ñeneen ñi ay moo seen i morom ñii dem foofu ay yaa ngi am na ñeneen ñooy lor. enseignants yi waruñoo dem privé yi di jàngale bàyyi école yi parce que école yi moo jiitu parce que buñ defee loolu ñi nga xamante ne amuñu ay moyens dañuy am ay problème yooyu le waajur di woo nguurug senegal mu wut saafara ci mbir mi ndax lii raam ci ñag ba la jëm. góor gi fexe loo xamante ni sa waay nañ bàyyi ko. parce que école publique yi ku nek xamna ni ngor gi dama suy dugal loxam ñom ñi xamante bu yer dewe ngor gi moy di fay war nañ top ginaaw tamit def sam sen cadeau ak li ngor gi bëgg. ma ngi wax ngor gi nañ jappalé xalé yi xamal ne enseignant yi ne leen carrément élèves yi ñom waru ñoo dem di jàngale ci privé yi bayi leen ñom dañ leen wara taxaw jangal jàngal leen jàng bu baax. kat bi di wo ay natangom ne nañu jital xel ak xalaat té bañu jital seeni poste enseignant de métier là jangalé na pendant 13 ans euh ma jangalé yépp ci école publique laa ko def di lancer un appel di wax ni nañu jiital askan bi jiital réew mi d'abord. su weesoo grève yu bari ñu nemmeeku ci système éducatif bu Sénégal jàngalekat yi légui l'école yi faré ci nguur gi dañu fay fayeeku seeni cours wala sax ñukoy dem diko bayyi ginaaw ndax privé wi limi mel nak di phénomène bu jaaxal ndongo yeeg seeni waajur ba tax ñu ci woo nguurug Sénégal mu jël ci ay mesures yu am solo yegsi ci yéenekaay yi moom la ñuy jeexalee la ñu xëyee tey ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. sira ngeen juddu ci sa kanam nga fekkee ba ñu koy tudd fekkee ba muy raam diggal la ko tojal fekke ba muy jàng dox nga bokk ci ñu ko teete ba moom fukkeet ak juróom nga koy seetaan muy faatu te doo ci jëm dara ci les cadres de l'observateur xëy tënk li am ci biir AFP mu di alliance des forces de progrès fa mu tollu tembe moo di ñu yàgg ci parti bi fekkee parti bi muy juddu nee nañu ñu seetaan benn jafe-jafe am ci ba tax na jug nañu sol seenu dàll ngir li jënti jafe-jafe ñëgg ñëg ak ñaaxo ñaaxo yi am ci diggante a assemblée nationale gi di Moustapha Niass condition ya mu mu des léegi nag Alaaji Malick Gakou le quotidien nañu Bouna Mohamed Seck bu AFP ma nga ca mook Alaaji Malick Gakou ne moom Bouna Mohamed mi nga xam ne mooy sarse élection ci biir parti bi di alliance des forces de progrès keroog ci assemblée sénégalaise général bu ñu doon amal ca diwaanu Ndar lam wax moom Mohamed Seck moo di Alaaji Malick Gakou moo dajale ay ndawam yóbbu leen ca ndajama ngir ñu yuuxu kii di Moustapha Niasse te Gakou am na lu mu war a wax am na lu mu war a leeral jamono ji doonatul ma Moustapha Niasse moom ak ñun lay doon millions yu bari yi mu yor moom Malick Gakou di ko séddale ak di ko pasar pasare na wax waa Sénégal fan la ko jëlee lu ko mooy ñun dinañ ko wax ndax xam nañu fan la xaalis bu jógee Alaaji Malick Gakou amul fit ne bu amoon na muy def di génn biir AFP taxawul parti boppam bu boobaa ca lay xamee ne bés yi góor a koy bay ba ci gerte lu ci askanu Casamance bàyyiti rek léegi nañu koy def du leen jaaxal le soleil nañu njiit réew mi Macky Sall moo fa jaar ak ndimbal ne am na ci ay tund yu nekk foofee mu di ay wilaas la mu leen may moo di ay machine wal machine soq ak machine bojjo président Macky Sall soleil nañu ma nga woon ci anambe waaye ci tig tigal boobee la mu fa doon waxtaane moo di wàllu ceeb bi autosuffisance en riz di li ñu soxla ci wàllu ceeb ñu fexe ba mën a kaay bi boo xam ne def nañu ko ngir jëm ca kanam yéen a bi nañu Casamance gi làq woon président Macky Sall jàpp na ci ba mu làqarte ko désenclavé na lu dul dem Casamance sëlëm wa nax leen ñu jàpp ne moo fi def te defu fi dara Macky Sall ak lu ñu ne ko fa def defu ko fa deful dara lu dul mu ngénte ko ndax lépp naalub Abdoulaye Wade la Khoureychi ak di ko ko gërëme mu di ageen ak jaboñ loolee man maay ki ko négocié woon ci jamonoy Abdoulaye Wade ba mooy doon ministre économie maritime Karim Wade moo demoon signé ji accord boobee diggam ak ambassadeur bu Corée du Sud ci populaire borom Casamance di Abdoulaye Baldé nañu fa li ko jaaxal moo di nan la nit mënee ne day def tournée économie ba noppi gàddu wali su xaalisam ca wet ga Amadou Tidiane Wane mi directeur cabinet Abdoulaye Wade nañu fa loolee ngeen ji nga xam ne ñoo ngi topp ñenn ñi di leen toppee teraanga julewul xam ne la ñuy def moo gën a yées li gars yi doon def ci nguurug Abdoulaye Wade Macky kalangu ba xolam sedd fa ñu ko doon la ca juróom-benn weer ak fukki fan ak juróom-ñeent Karim ak yeneen juróom-ñeenti nit yoo xam ne dañu leen a tudd ci coowal teranga ju lewul am Karim indi kër bi xëy ak ñun ci li mu jàpp ne mooy li gën a fës ci layob doomi lay Wàdd gi moom Abdoulaye Wàdd ak doomam ji mu déggootul di Idrissa Seck saa yu ñu xëyee dégg ay mbiram ubbil direct info Déthié Fall mi numéro 2 parti réew mi ngi wër réew mi di dajale gars yi nekkoon ci yeneen parti politique yi di yóbbu ci biir parti réew mi yéen a kaay bi nañu gannaaw ralliement bu réy ba woon ca Mbàkke keroog ma nga woon ca diwaanu Kaffrine waaye li ko dalee ngànna ba kàccox jàpp ñu bari ña fa nekk ca nekkoon ci APR ñoo ngi léegi ci Idrissa Seck Cheikh Alassane Sène mi ngi ci direct info journal bi xëy di laaj wecc moom Cheikh Alassane Sène ana lan moo ko téye ci kaso bi ba léegi ndax police setal na ko na set wecc ñu dem ci lamb ji ak sunu lamb mi xëy ñun ci waxtaanu mu séq kii di Ibou Ndiaye ñoxo bàyyi li mu ko laaj moo di nan la gisee ëllëgu Yaxya Jóob Yékini Ibou Ndiaye ñoxo bàyyi tontom moo di Yékini na fexe combat ren bëri ko te jóge ci lamb ji église sub njiit lu bees la di Monseigneur Benjamin Ndiaye jël na leen gaye direct info ko le soleil xëy ko feelu nañu Monseigneur Benjamin Ndiaye teg nañu ko ci toogom quotidien xëy ci ak ñu simple te jekk mu di Benjamin seigneur de l'Église. Mamadou Mohamed Ndiaye ñu lay gërëm di la sante jaajëfal kon mboolem téléspectateur bu ñu jàkkaarloo loon benn waxtu ba légui rédaction bi diglé leen daje 19h30 ak 20h ci yeneen xibar lay doon ñu yendu jàmm.